asalaamaaleykum mbokk yi ñoo seetaan ñu ngi leen a dalal jàmm fii ci Paradise TV ci boppi xibaar yi police bi nekk Kanifing jàpp nañ lu toll ci fanweer ak juróom-ñeenti nit ñoo xam ne càcc tax ñu jàpp leen. génn nañ ci biti di laaj waa réewi Gambia naka lañ jàngatee yari démb ak yari tey ki nga xam ne moom mooy Anthony Joshua mu ngi war a jàkkaarloo kii di Dioteri Wilder ci xeex boo xam ne dinañ ko war a am maanaam ci tàggat yaram. président yi Amérique ba muy Donald Trump fu mu nii nag daje na ki nga xam ne moom mooy président Kim Jong Un leen indil yaatal ci biir xibaar yi. fanweeri nit ak juróom-ñeneent la polis bi nekk Kanifing jàpp ci wàllu toj néegi jàmbur jël lu moomul. juróom-ñaar ci ñoom jàpp nañ leen ñu nekk doomi yi senegal ñii nag dara du seen métier lu mooy wër di sàcc ñenn ñi nag nga xam ne jàpp nañ leen tamit li tax ñu jàpp leen mooy wër di tafu nit ñi bi nga xamee ne feeñal na ko kii nga xam ne moom lañ toftal ci kii yor kàddu police bi ñu gën koo xamee ci Fodé Conté moom nag am na kàddu yoo xam ne gaaral na ko ñu ebal fa suñu ndaw ñu gën koo xamee ci Lamine Fall ñu seet li mu indil anti crimes unit muy mbootaay bi nga xam ne Gambia police force ñoo ko sos si weekend buñ génn nii jàppana lu toll si fanweer ak juróom-ñeneenti nit ñi nga xam ne ñu ngi leen jàppa ñuy def ay tafaar si biir réew mi fii gannaaw loolu nag bunte bi nga xam ne moo amee taskatu xibaaru Gambia police force ona ñi nga xam ne ñooy taskatu xibaar si biir réew mi pour wax leen arrest bi naka la demee anti crime unit mooy <clears throat> ah, banqaas bu ees bi nga xam ne eh, police yi sos sos nañ ko bu yàggut eh, mu jóg di xeex eh, problème yi nga xam ne moom mooy am si dëkk bi muy problème yi tafu problème yi sàcca problème yi dajji ah, problème yi jël alali jàmbur ah, ni ma ko mën a gàttalee mooy unit boobu man may seen commandant unit bi nag ñu ngi ko sos on the 16 of April uh, 2018. waaw suñu oto bi li ko waral mooy dañ gis ne réew mi nit ñi dañ war a jóg ñu jàppalante <clears throat> te jàppalante bi yëpp mu ngi wa uh, sababu si li nga xam ne moom moo xew di affaire yi tafaar bi nit ñi di def si biir réew mi fu mu nekk nii eh, nit ñaa ngi koo jooy di ko jàmbat. di ñu ko jàmbar saka ñun police bi biñ demee si biti gis ngeen ñu teg fa fanweer ak juróom ñeneenti ndaw e, li si ëpp doole di doomi réew mi juróom-ñaar rek ñoo dëkkut ci réew mi ñoom seen yëngatu yëngatu ci réew mi mooy e, sàcca tafu jël alali mobile jàmbur ñii di sàcca muy ay mala di jël di jaay ñoom si la ñoo yëngu ñun nag bi ñu ñëwee ñu jàppal leen ñu ne daal il faut ñu oo leen su ko defee ñu mën a waxtaan ak yéen yéen mi nga xam ne yéen a ko mën a yéebaane réew mi yëpp dégg ko réew mi gis ko xam li nga xam ne moom mooy xew ak tànka yi dëgër yi nga xam ne police bi jël nañ ko pour taxaw si pour gis ne askani Gambie bi ñoom ñëpp kenn ku nekk dinga mën a tëdd si jàmma dox sa soxla si jàmma ah, wax sa wax si jàmma ñoom nag ci loolu lañ day yëngu biñ leen jàppee nag li si ëpp doole yëpp dañ nangu liñ leen jàppee am na ay xale yu ci nekk ñoo xam ne ay xale yu ndaw lañ toll si fukki at ak juróom ñii tollu si fukki at ak juróom benn am na kenn koo xam ne sax moom biñ koo jàpp dañ ko jàpp muy jël mobile ci poos ndaw si yuuxu fekk ñun ñu egg si ñu jàpp ko ak bunta bi nga xam ne Gambia Police Force sos nañ ko ñu gën koo xamee ci anti crime unit ñu ngi dellu di wane seen taxaw bu dëgër ci wàññi tafaar ci biir réew mi Lamine Fall Paradise TV News ba léegi ci biir Afrika bu ñu ko seetee yari démb ci xale yi ak tey utee na li ko waral nag ñenn ñi dañu jàpp ñun dañu jéggaani jikko yoo xam ne bokkutoon ci sunuy jikko loolu tax na ba tey jii ñenn ñu bari dañuy yar seeni doom yi te bàyyi doom bi jàmbur yi te démb ñu ngi ñuy fàttali ne loolu amuloon di nga gis xale boo xam ne dina def lu mu warta def ci mbedd mi nga yar ko buñ àggee ay waajuram yokkal ko waaye tey jii gis nañ ne xale yi kenn yaratu leen ku mooy seeni waajur yi loolu tax na nag am nañ suñ ndaw loo xam ne ebal nañ ko ci mbedd mi mu jàkkaarloog askan bi di leen laaj naka lañ gisee yari démb ak yari tey kooku du kenn lu muy ndaw li nga xam ne moom la ñu ebal muy li woon ni meng mànga ñu bàyyi ko moom it mu indil ñu waxtaan wi nga xam ne am na ko askan bi ci biti yar dafa doon lu am solo ci doomi aadama fi ñu toll nii lu ñu gis mooy yaruñu démb ak yaruñu tey dafa am ay wecceeku lu waral lile ci waajur yi la walla ci xale yi tey Paradise TV jóg na ngir laaj askan wi lan moo waral lile. maa ngi wax suma moromu jigéen ñi doom danga koy yar ci sa biir néeg waaye doom soo ko yarul ci biir néeg bi mu war a génn ci biti. du am yar benn yar du ko am ndax soo yaree sa doom ëllëg ak sa biir fu mu munta dem du soona fu mu munta dem du soona waaye boo yarul sa doom ci sa biir néeg fu mu génnee dafa asoona dina wane man sama yaay de xaw ma lan laa def fekk du dara ñaaka yar si biir néeg moo ko def waaye sa ndey bu la nee bàyyil bët sax day wax te fekk gémmiñ bi waxut xale bu yaru su mag bu la bu la wonee bëtam sax bu ko bu ko bu nu mu yóbbu yi rek boo ko gisee rek di nga xam ne ni kii kii lii la wax ak kii la la wax ba pare kàddu xale bu yaru kàddu suñ ko waxee suñ ko soo suñ ko jekkaliwut sax waaye di nga wax ne di nga xam ne ni ki kàddu gi lii la fi ndaan su fekk borom moom egalut ko xale bu yaru moo dee xam loolu waaye soo yaruwut doo xam bët doo xam wax ji fu mu faaxee ko ak fu muy bàyyee ko doo ko mun a xam par seen doom yi kenn du leen dóor kenn du leen wax dara ah waaye ñun ñun ñu ñuulee wala ñoo ko fi tubaab bi ñun jëriñu ñuul lañ am ah jëriñu ñuul lañ am te dañ suñu doom yi dañu war a génne dem fu sori léegi yow sa doom soo ko yarul su génnee dem fu sori nooy def du coono boobu lay am dafay soona day soona de bu soonee lu ma wax suma yaay suma yaay lay wax de du wax yaay jàmbur de suma yaay lay wax. wan nit ñi ñu ñu yaree ak léegi dafa utee parce que léegi won suñ taami maam yi ñoom suñ woyee xale yi rek dañ dee understand ñeneen ñi suñ xoolee sa doom bi soo ko xoolee si bët rek fekk waxuloo sax borom daf dee xam lan nga nekk di wax waaye léegi àdduna bi ceeñut de waaye nit ñi ñoo ceeñ waaye nit ñi dañ dee wax aduna dafa ceeñ waaye aduna ceeñut comme nit ñi ñu nekka comme advance technology bi lu nekk dañ ko dee si télé yi si mobile yi lu nekk léegi ñu ngi koo gis comme léegi nit sa waajur daf laa jàngal leneen loolu doo ko jël de wala mën nga koo jël sax waaye soo xoolee si tele bi loo faa gis yow loolu ngaa bugg a dem jël si soo loolu dafa tax léegi nit ñi ñu dee yaree seen doom yi dafa xaala difficult yow mën ngaa yar sa doom sa lu baax sax waaye mu dem sax si biti sa wala peer influence comme xarit yi mun nga am xarit bu bon sax yow say parents bi lu la yar si kër bi nga dem si kër bi nga fàtte loolu nga dem jël boobu loolu tamit léegi loolu problème la. ñeneen ñi technologie bi moo tax gaa duñ parce que sa parent bi mun na laa wax wax nga bañ koo dégga mun nga koo dégga sometimes sax waaye technologie bi tamit am na si loxo. comme ni ñu ko gisee lu bari moo waral tey ñàkk yar bi ci xale yi am ay wecceeku ginnaaw waxtaan bi ñu am ak askan wi lu ñu xamal mooy technologie bi nga xamante ne moom la xale yi di jëfandikoo maanaam internet moo waral lile ñeneen ñi tam lu ñu xamal mooy child right bi nga xamante ne moo am ci dëkk bi maanaam ak gi nga xam ne moom lañ jox xale moom itamit am na ci doole bu mag ak itam society bi man na Léonie Manga Paradise TV News mbokk yi ñu ànd ak yëbaane yi buñ del si waatee dinañ ànd ak yéen ci xibaari tàggat yaram bi xew ci bitim réew ak xibaari bitim réew bi Albinism is the complete or partial absence of pigment in the skin, hair, and eyes. Albinism occurs in all races and ethnicities with a frequency of about in with most cases in sub-Saharan Africa. Albinism results in acute sensitivity or intolerance to light, severely reduced visual clarity, involuntary eye movement sometimes called dancing eyes. Apex Optics is giving free consultations and glasses to all albinos at all our branches until June 2018. Optics truly perfecting vision. ba léegi ci xibaar yi tàggat yaram waaye ci bitim réew ndaw loolu lu ñuy wax Deontay Wilder juddoo foofu ci réew yi Amérique nga xam ne moo jël raw gàddu gi ci wàllu jongante boobu ñuy wax box nangu na pour daje ki nga xam ne moom mooy doomi Angleterre boobu la ñu gën koo xamee ci Deontay Joshua ndaw loolu nag juddoo foofu ci réew yi moom nag wax nañ ni mu ngi am fanweeri ak ak ñaar. waaye nag bu ñu seetee ay mbiram jël na raw gàddu yu bari yoo xam ne ci diggante ay yeneen i naataangoom yoo xam ne ñoom it dañuy yëngu ci wàllu xeex bu nu mel muy box ñu indi leen boobule xibaar. bind na nag juróom fukki million koppari Amérique bi moom lañ ko offer pour mu xeex foofu la ci Amérique loolu ba léegi mu ngi taxaw maanaam lu mun a antu la tey jii nag mu ne am na nangu too pour xeex ak Joshua foofu la sa UK te suñ sukkandekoo si wàll manager mi Sally Finkel wax na ne am nañ nangu pour xeex foofu la sa UK Joshua ak ki nga xamante ne moom mooy promoteur bi mu wuyoo si Eddie Hearn gën nag ñoom gën tontu si jeeg wax yi nga xamante ne ni moom la waa Wilder wax waaye si gannaaw ki nga xamante ne moom moo dina promoter bu Joshua mu yoo si xaan ŋaaññe woon na nag waa team yi Wilder bi ndaxte nag wax na ne ñoom business si social media bi lañ ko dee defee si Facebook be Instagram bi lañ ko de defee te firndeel na ne daal nangutoo duñ ko de defee si Facebook be waaye nag si néeg lañ ko defee te su fekkee nag ñaar fukki at ak juróom-ñetta ndaw bi di Joshua américain bi dina nekk nag xeex bi nga xamante ne ni taarix moo faa feeñ ndaxte képp képp ki nga xamante ne rek am nga ndam si sa morom mooy nekk njëlbeeni heavyweight Euh, bi nga xamante ne nii win na ñeenti title yi nga xamante ni daal dañ ko ràññee benn yoon. ba léegi mbokk yi ci xibaar bu mujj bi ci bitim réew kii di président kii di président bu Amérique ñu gën ko xamee ci Donald Trump daje na ki nga xam ne moom mooy président yi North Korea muy Mr Kim. seen nangutoo bi nga xam ne nag moom lañu am ci biir waxtaan nekk na lu ama am solo seen diggante ñoom ñaar parce que kàddu gi dëggu na te it nag wér na. waaye nag ki nga xam ne mooy président yi Amérique bi muy njiiti réewi Amérique bi wax na ne moom nag dootu dalati ci kaw ñi nga xam ne ñoom ñooy North Korea segem ki nga xam ne moom mooy njiiti yi North Korea moom wax na ne dinañ yàq boor bi nga xam ne bu ñu defaree seen mbelle yi ba noppi muy bom foofu lañ ko dee eh, testé maanaam foofu la ñuy seetee doole ji ñu indi leen boobale xibaar. Mr Trump wax na ne dina taxawal lépp loo xam ne guerre la Mr Kim wax na ne. dina yàqa palaas bi nga xam ne foofu la ñuy seetee ngànnaay yu bone si biir dëkkaam gannaaw loolu tam kii di Mr Kim wax na ne dina génne lépp loo xam ne ngànnaay bu bon la fale sa biir Korea bii nag nekk na njëlbeen yoon bi nga xam ne président bu Amerika daje na ak président bu North Korea pour am waxtaan li nag lekk na loo xam ne lu luñ rafetlu la gannaaw bi nga xamee ne ñaari dëkk yi amoon neen jàppante bu tar ci ay weer yu yuñ génn waxtaan bi nag ñu ngi ko jëloon jubale ko ci wàllum ngànnaay yu bon yi nga xam ne North Korea ñu ngi ko am ak réewum Amerika gannaaw bi ñu amee waxtaan bi ki nga xam ne mooy président Donald Trump di njiitu réewu Amerika wax na ne Korea bu defee li mu wax yépp moom dina amee lépp loo xam ne seen kaaraange la mbokk yi loolu mooy woon xibaar yi biir réew mi ak biti réew ngeen doon ci ànd ak Bandia Wally Mbaye di bàyyeekoo fii ci Paradise TV ñu ñaanal leen kenn daal ak jàmm ba ëllëgam jàmm incha allah jërë ngeen jëf.